الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا شفينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن يويرك سنة جوتاي أسلف مع القرآن دنيو تيجاجي فالجمع يغا خبن يوم يوم يتوقو باخ فني من تدك شادن بي نكوي أمي تكر جدي لامن زودي كورا بارك الرحمن فيكم وفينا وجعلنا من أهل القرآن في الدنيا ويوم القيامة وأن يجمعنا في جنات عالية قطوفها دانية كما جمعنا في هذه الدنيا نويرك fi ñëw yemoon ci jotaay bi weesu ñu doon waxtaane taabici bu mag boobee nitu yàlla boobee nga xamante ne moom moo di waysin al qarni nga xam ne yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam moom moo ko xamle woon te yonte bi dénkaane woon te yonte bi salallahu alayhi wa xamle woon lu bare bare ci mbiram muy xadisu abi hurayra muy nettali jotaay googee ñu amoon ak yonente bi salallahu alayhi wa ba jëmm joojee duggoon yonte bi xamaloon leen ne am na kuy julli ak ñoom te bokku ci waa aljanna melokaan ya yonte bi sallallahu alayhi wa sallam don xamle te diko jàngale ci ñi nga xamni ñom ñoy buri aljanna ya ñi nga xamni ñom ñoy ñooy sange aljana ya mu xamle won ci ñett al asfiya al akhfiya al adriya wa yonte yàlla muhammad continué won mu waxoon ne alladina ida staazanu ala al umarai lam yu'tan lahum bo moy bu ci jëkk ñaarel bi wa idha khatabu al mutana'imat lam yunkaxu la ilaha illa allah mu ne buuri aljana yi sange aljanna yoy nga xamanteni wa aduna dañ leen di réere mu ne wa idha khatabu al mutana'imat saa yu ñu demee di jéem a ngoroo wala di ñaan soxna ci borom xaalis yi wala autorité yi wala ñi nga xam ne dañoo jekk wala ñi nga xamante ne borom yi askan lañu ñooñu suñu demee di fa ñaan soxna rek duñ leen may gis nga Sénégal soo ñëwee ci ab famille nga ne leen <laughs> dama bëgg <laughs> ñu may ma soxna suñ la bëggee dàq li ñu njëkkee mais ñu ñuy istixaar mais ñu ñuy istixaar <laughs> soo déggee istixaar rek yow moom découragé ñibbil waaw wala ñu xaaral ñu seetlu ko xaar ñu seet maanaam suñu bëggee bañ rek dañ koy jiiñ xaar wala ñu jiiñ ko ñu jiiñ ko sëriñ ba allahu akbar waaye su fekkee borom alal moo ñëw ñaan si soxna amul lesti xaar amul sëriñ ci saa si dañ lay may duñu xool leneen la ilaha illallah wa ida xatabu lmutanaimati lam yunkaxu te xamoo ne kookee ngay bañ a may soxna soit da ngoo jéem a jam ci askanam nga ne moom xeet sàngam la wala amul métier wax naa leen ko waxati leen ko kanta ñun ñañ daara de نحن معلم القران اك فنيو متي نيك تي ولا ادنا بي وا نينا لين فوغين ديم نيلن جانغال كاتو القران لانو جانغ كاتو القران لا واو كولا تي مي سخنا مي لا تي سخنا كولا تي باجا مي سخنا مو باجا لا تي مي كون وان قتب المتنعمات لم ينكحوا ينتي على محمد نيني نيارل بي ньо ньо دي سونو آه، آه، نياني سخنا تي نيغا خامتاني جيكو نانو ادنا دون لين مي سخنا الذين ان غابوا لم يفتقدوا suñu absenté kenn du leen nemmeeku la ilaha illallah gis nga ngénte Sénégal ñu baree bari su suñu amee doom xoolal ñañ koy njëkk wax mooy ñi nga xam ne yaakaar nañ ci ñoom weccet wala ci biir kër gi léeg nga nekk ci biir kër gi fii ci mim réew dara am ci kër gi sa sa war sa rakk wala sa mag ba nekk parce que yaakaaruñ ci yow weccet in gaabu lam yuftaqadu ñoom suñu absenté kenn du leen nemmeeku ba ci dëj laa ilah moo tax waaja waxoon na man daal nit ñi dañoo soppeeku ba xàmmeetuma leen dañuy naafeq ba naafeq ci dëj laa ilaha illa allah xatta fi l mawti naafaqu ba ci dëj sax ñoom dañuy naafeq waaw réew mi dëju kilifa wala dëju autorité ak ki nga xamante ne du nekk ko dëju baadoola sax da koy xàmmee soo rombee rek nga xam ne fii baadoola la laa ilaha in raabu lam yuftaqadu yonte yàlla Muhammad nee ne ay nit lañu ñoo xamante ne suñu absenté kenn du leen nemmeeku ci benn jotaay te xamuñ ne kookee ñuy bañ a yëgal wala di ko soofal bokk na min mulukil janna wa saadatihim bokk na ci buuri aljanna bokk na ci sang ya alladina in talaau lam yufrax bi talaatihim ñoom suñu ni ñu toogoon ci ab jotaay nga jékki ji gis ko ñeen ñoom ñu fël kenn du kontaan xam nga léeg-léeg nga gis ab jotaay am kilifa boo xam ne am ku dugg si rek ñëpp daal di jóg ñëpp daal di kontaan parce que jàpp nañ ne mooy waliyu ba jàpp nañ ne mooy sëriñ bu mag ba jàpp nañ ne moom mooy faj aajo ya mooy faj buumu gàcce ya waaye am na koo xam ne su ñëwee xoolal ka doon wax du dagg sa geesu te xamoo ne ki dikk ci buuri aljana yi la bokk ëllëg mën na laa ram mu nga dugg aljanna bokk na ci sangi aljana ya wa in talaau lam yufrax bi talaatihim wa in xadaru lam yudaw mu ne ñetteel ba in xadaru lam yu daaw bépp jootaay bu ñu toog kenn du leen sa jox kàddu ñu leen sa jox parole la ilaha illallah xanaa yonte yàlla Muhammad mel na ni sénégalais yi la doon waxal lii sénégalais lii moo xew ci réew mi wa in xadaru lam yu daaw ci jotaay bi xoolal dañuy xool ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñoo am alal wala ñoom ñoo am dara wala am na lu ñu tekki wala xàmmee nañ leen wala siiw nga moo tax léegi soo gisee réew mi ñëpp maanaam façon bu ci nekk nit ñaa koy def pour am buzz am na koo xam dafa bëgg pour ñu xàmmee ko comme que sénégalais suñ la xasee ba xàmmee rek dem yaay star am na koo xam ne day wër di saaga pour ñu mën koo xàmmee am na koo xam ne day wër di di wax lu dul dëgg pour ñu mën koo xàmmee am na koo xam ne day wër di dof dof lu faw mu def yi fi dof pour ñu mën koo xàmmee comme que Sénégal faw suñ la xasee ba xam rek yow star nga foo dem ñëpp lay joxoñ di la xool loo bëgg a dox dafay dafay yomb loo dox mu sot soo demee fépp kayit booy dox day sotti moo tax ndaw yaa ngi def nit ñaa ngi jéem a def pexe bu nekk pour ñu mën leen xàmmee ci réew mi la ilaha illallah fu ñu jëm il xadaru lam yudaaw yonte yàlla muhammad nee ne am na koo xam ne mu ngi ci jotaay bi joxoo leen ko jotaay e joxoo leen ko kaddu faale woo leen ko te xamoo leen ne kooku bokk na ci buuri aljanna wa in maridu lam yuaadu yonte yàlla muhammad nee ne sangi aljana yi ak buuri aljana yi dañuy nekk ci biir nit ñi ñoo xamante ne suñu feebaree sa kenn du leen seeti la ilaha illallah in maridu lam yuaadu tey ji su fekkee ne nit ñi maanaam ki feebar ñu koy seeti mooy koo xamante ne dafa am fu la féete woon wala kilifa la ci réew mi wala yu mel noonu nga door ko seeti waaye wa in maridu la biaa da ngay dëkk ak moom ci kër gi doo ko sa seeti wala allo diw na nga def yaa ngi ci jàmm dem na xawalal ci hôpital yi ñaata nit nga fay fekk xam ne feebar na la ñuy fajoo sax mënuñu koo am soo sa xol jeex dëgg-dëgg duggal yi day fekk nit koo xam ne mu ngi toog di sukuraat médecin yi duñ ko laal parce que lan fekk ordonnance bi ñëwul duñ ko laal ma ne système boobu kenn xamul noo koy tuddee duggal ci hôpital yi da nga mais lu tee ñu faj ko donte da nga koy faj ba pare nga tëj ko sax police nee na ay mbokkam andil euh, ordonnance bi waaye sa faj ko ba pare rek nga door lijjanti loolu da dem ci hôpital yi baa doole bi wala nit ki dugg di sukuraat duñ ko sax faale lii moo am ci hôpital yi ñëpp teg nañ ci bët xanaa duñu xool yërëm métit boobee nañ ko faj ba pare donte dañ koy faj ba pare téye ko fa nee na ay mbokkam andi lañu koy faje ci ban réew la ñu nekk ci ban dund la ñu ana nite ana jàppalante bi amoon ci maam yi ana jàppalante bi amoon ci saxaaba yeeg taabiin yeeg taabiu taabiin yi réew tubaab yi la fa am lu tee mu am fii lu tax fii Sénégal soo feebaree soo ko deful ci réseaux sociaux yi rek duñ la faj faw Cheikh Omar toog wala ay nit génn naan diw dafa feebar amul luñ koy fajee dañ ko war a yóbbu fekk xaw yi suturaam rek kenn du ko faj kenn du ko faale nga door a gis ñu yàggar yàggari daal di ñëw ne man maa ko may million may naa ko ñaari million pour ñox ko ci réseaux sociaux yi ana def te yàlla tax laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal ada xana defatoo leen ngir yàlla fajal nit ki balaa muy àgg foofu kon na ci état jël ay matuwaay nit ñi di faju balaa ñuy xawwi seen sutura parce que vidéo la day des ci youtube bi ay doomam ay sëtam nit di xam ne suñu maam de ba mu feebaree dafa waat ñu door ko faj nañu xoolaat mbir soo duggee ci hôpital sa yaram sa xol dafay jeex wa in maridu lam yuaadu yonent yàlla Muhammad nee ne nitu aljana yooyu buuri aljana yi sangi aljana yi dangay gis ñoom suñu feebaree kenn du leen seeti wa in maatu lam yushhadu suñu deewee kenn du leen waxal lu baax soo déggee taxaw ñu taxaw pour jullee néew mu yàgg lool dafa fekk ñu baree bari li am na ñu fa am intérêt walla frère am wala sœur am wala papam am na millionnaire la wala milliardaire la mu ca booloo ba yow nag faw nga wax pour ñoom ñooñu am loo ca am moo tax da nga gis léeg ñu taxaw war a jullee néew bi dem robi ko dañuy taxaw di wax ba am ku daanu ca sàppe ba ndegem julli farata la saa yàlla wax ne faqra'u ma tayassar jàngal lu tuti la nga xam ne parce que amna ku febar ku nek sa ginaaw amna mag mu nek sa ginaaw amna boromi aajo boromi soxla bu nek ci ginaaw amna musafir bu nek sa ginaaw gàttalal julli fatar farata bi na julli new dañuy taxaw di wax ba déwén nit ñangi taxaw ci naaj bi so waxe rek ñu sik la gan la ni ban diine la jàng nekul ci téré yi ñu xam de te nekul ci li nga xamne mom la mag ñi xamoo in la bi shahadu suñu deewee kenn du leen waxal lu baax bal suñu deewee sax du jaral kenn sax mu déplacé pour dem ci ñoom réew mi moom na la ñëpp xam mooy li ma wax rek su ñëpp xamee dañ laa xamee ci lu bon ak leneen ñoom faalewuñu loolu nañ la xam rek soo deewee dëkk yépp yëppay xat télé yeeg journal yëpp fii ku ñu ku bëgg ñu tudd sa dee ci journal yi nekkal ku siiw ci télé yi soo nekkee ku ñu xam soo deewee tele yëpp koy wax ak lu ñu la mënti xamee waaye ana baadoo léegi laa xawla wala quwwata illa billah naafiq gi dafa mujj dem ba wër ndoom dund doomu aadama fi ñu toll te naafiq yi ñoom ñoo gën a métti mbugal yowmal qiyaama kon tey jii bi nga xamante ne yonent yàlla Muhammad nettali na saxaaba yi nitu aljanna yooye abi hurayra nee na ko yow ki yàlla yónni kan nga ñuy wan ku mel noonu ci jamono ji wala koo xamante ne dinañ mën a dem ci moom yonent yàlla Muhammad ne leen daaka uwaysunil qarani kooku mooy uwaysunil qarani kon Uways al Qarni bi ñu war a waxtaane ci jotaay yii moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi nettalee melokaan yii Abi Hurayra nee ne ñu daal di koy laaj ne ko kan nga ñuy joxoñ ne bokk na ca yonent yàlla Muhammad ne leen mooy Uways al Qarni kon jotay yi di ñëw dinañ yaatal ci dund Uways ibn al ak ñamu doon ñaanal ak yi nga xamantene jàngale nako kon li mo nekkon suñu jotay asalafu ma alquran ma kaana min sawabin fa min arrahman wa ma kaana min xatain fa min nuqsan salla al ilahu ala an annabiyi wa alihi ma labba mulabbin aw tahallala muhrimu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh L'eau multimédia, moi l'un des mes émissions, As-Salafu Ma'al Qur'an. Nous sommes l'eau multimédia. L'eau multimédia. 27 avenue Émile Badian, Angle Paul Old Dakar. L'eau multimédia spécialiste le informatique bureautique divers matériels réseau et accessoires accessoires ci